الذين أنحمت عليهم غير المحلوب عليهم ولا الضالين إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وحملوا السالعات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo jullit nuyoo bi gën a tedd di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidil Muxtaar di ñaan sunu boroom yàggal fi lool te mu ànd ak wér ba naal yim naa la liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba mu àggale ci sagoom ak mbooleem ñim ko àndal ñëpp ay jëwriñam Cheikh Amadou Muntaxa ak mbooleem seexi sëriñ Touba yëpp di siyaare bu baax it sunu jëwriñ sunu mag sunu kilifa di kilifa jataay bi sëriñ Yankhoba Gueye ñu ngi lay nuyu te di la siyaar bu baax te it di la ndokkeel di la jaajëfal ci coono bi donte ñoo yow ko bokk waaye am nga ci coono boo toggoo yow dong kon ñu ngi la ciy jaajëfal di siyaara it sëñ Bamba Ñaŋ bi nga xamante ne bii moo topp ci ginnaaw diir bu yàgg ba léegi ñu ànd liggéey bi di ci toggoo ay coono kon moom it ñu ngi koy sant bu baax di sant mboolem administration bi nga xam xamante ne ñoom lañ àndal ñépp di nuyu bu baax sëriñ Dame Cissé mi nga xamante ne mi mi ngi sunu wet di borom xam-xam boo xamante ni bii maa ngi jéggulu ci moom ci kaddu yi may teg ci kaw ay kaddoom ndax du ay teggin mu wax ba noppi ñu ciy tegal ay kaddu ca léppam mat ma sëkk waaye ngant moom ngant la te ndigal jëfe rekk la sant te ndigal lañ ñu ci jox ngir ñu jox ay kaddu ay kaddu yu soññee rek kon sëriñ bi sëñ daam ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Modou Seye ñu ngi lay nuyu yow di la siyaar bu baax ak mbooleem ñi nekk fii ñëpp kaddu yi nag kaddu yu soññee rek la ndax sëriñ Touba li may faral di wax ni buñ ci doon wax ba dajalee borom xolam xam yi yëpp kenn du mën a matal ci sëriñ Touba ndax sunu boroom bi mu waxee ni. garab yépp buñ ko daggoon mu nekk ay xalima géej yépp ñu def ko mu nekk daa maa nafidat kalimatullahi du tax mukk baati yàlla yi jeex waaye Sëriñ Tuubaa it buñ jëloon garab yi ci kaw suuf yépp sot ko mu nekk ay xalima jël géej yépp ñu def ko ay daa du tax ñu xam kan mooy Sëriñ Tuubaa kon dañ ciy wax rek sunu kem kàttan li nga xam te ne moom lañ ci man waaye wax ji li ci gën a sëriñ bi mooy li nga xamante ne bi moo jëm ci dund doomu aadama ci kaw suuf te li nga xamante ni moo koy lii mooy ay teggin ndax dañoo wax ni ay teggin mooy li nga xamante ni bii su nekkul ci doomu aadama yi xaaju diineem mën na noo wax ni matul walla diineem matul ab xaaj la ci yoon ndax teggin mooy liy lii doomu adama ci kaw suuf te Sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni moom lañu yaakaar. mu digle ñu tere ñu bind ay téere yoo xam te ne jubluwu ci kenn ku dul ndaw ñi nga xam ne ñoo ñëw ginnaawam ndax ku ne xam na ne mag ñi nga xamante ne ñoom la jamononte ne ñoom wax nañu dégg mu jëf ñu teg seen bët waaye ñun ñi nga xamante ne ñu ñëw ci ginnaawam rek dafa bind bàyyil bi kon ku ne ci noonu war naa mën a jàng ngir xam lan mooy ay teggin ba nga mën a ànd ak say wayjur mën a ànd ak moroomi doomu aadama yi ngay doxantool ci kaw suuf ndax teggin mooy li nga xamante ni bi nit ki su ko amul rek mën na ni ñàkk na lépp te dañoo wax ni ki jàng xam-xam ba wan na aw lef su fekkente ni dem na ba amul teggi tamit xam-xam ba daf koy réer kon teg mooy li am solo nit ki bu yoroon bu ëpp li ñett ci amul teggin day mel ne amul dara ndax kenn du kon teggin mooy li am solo kon ci teggin yooyu lañ bëgg a jukki ay wax yoo xam te ni sëriñ bi daf koo waxoon wax ni waxlam bi anna al aadaaba wal mutaallimi wa ilyatul xaqili wal mutaallimi daal di wax ne wa huwa rawsul axlaaqi wa min xalaa minhu faqad taatala wa tabatala dat ne wa saara baidan ila alxalqi walxaalixi kullama ra'aahu ahadun maqatuhu wa abxadahu wa kullama jalaza ahaduhu maalahu wa saaimahu Sëriñ Tuubaa dafa wax ni teggin mooy lépp mooy rafetal boroom xam-xam bi nga xam ne dafa amul xam-xam tey wax xam-xam ay teggin mooy rafetal xam-xamam ba ñépp mën koy déglu ak ki nga xam ne dafa jug ngir sàkku xam-xam ak ki nga xam ne day boroomum xel waaye ak ki nga xam ne dafay sàkkoo wut am xel mu ne képp ci ñoom ñii ko amul ay teggin yaa ngay ñaawloo sa digganteeg sa borom ca doomam bu aadama bu nekk saa su ñaawloo digganteem ak boromam sunu borom day dem ba mujj daf koy def ab noonu wala yaasu billaahi taala te su ko defee ab noon mbooloom jullit ñi wala bindeef yi nga xam te ne dañuy doxandoog ñoom ci kaw suuf kenn dootu am yéene wala bëgg-bëgg ci moom. ngir lan ngir ñàkki teggin nga mu ñàkki teggin ak ñàkk warma ga suñu borom dem ba bañ ko ci loola bindeef yépp bokk ko ci bañ mu mel ne kon ay teggin mooy fondement doomu aadama ci kaw suuf ndax doomu aadama bu nekk bu juddoo ci ak njullit dem ba toll ci juróom benni at ay woy juróom di ay jullit lañuy njëkk def mooy xalaatal dem yóbbu ko daara alxuraan ngir ñu man koo jàngal yar ko wan ko lan mooy lislaam te lislaam kenn mënta waat ci ñun ne lislaam weesuwul ay teggin ak jëfe ndigal tey bàyyi tere jëfe ndigal nag weesuwul mooy fin la yamloo nga yam fa la nga xam xamante ni bii laaj doowul ne ko la ko wax waaye la nga xam ne moom def loo nga def ko diine weesuwul loolu ndax diine nekkul lu metti loo xamante ni bii dañ koy teengal ba mu teeng ba jàpp ni su fekkente ni nit ki dafa defoon dara wala nga soxna da nga ko wax ne ko yow sawar nga jëm déedéet diine demewut noonu waaye li ëpp solo ci li nga xamante ne bii bala ngay mën a mooy boo xasee ba am ay teggin ñu teg la ci aw yoon la nga xamante ni moom la ñuy tere yaakaar naa ne da nga weesu ba dootoo kon ay teggin mooy li nga xamante ni bii mooy dunduk doomu ci kaw suuf mooy li koy jàllale te ku xam ne nit ki su amul ay teggin kenn du sawar ci moom. kenn du sa war a toogaale ak moom ndax yaa ngay ragal ni soo waxee moom ma ngi lay ñàkk teggi te dem nañ ba jamono bii ñu toll yaakaar naa li ñu war a waxtaanee doonatul xaala ak xiilam mooy ci am xel lañ war di waxtaanee ci suñu biir ndax jàpp naa ne ñun ñi fi nekk ñëpp kenn raxu ñëpp ay jullit lañ ñii di ay murit ñii di ay xaadir ñii di ay tijaan waaye lépp mboole seen mi ngi jëm ci sunu borom subhanahu wa taala kon ñun ñi fi nekk ñëpp wenn xeet rek lañ muy ahlu sunna muy ahlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun ñi fi nekk ñëpp war nañuy mën a dénkante sunu biir ay kaddu yoo xam te ne kenn ku nekk bu ci jógee war naa mën a jariñu ci wax joojee bëri waa nag ñoo xam ne dañuy dem ci mbooloo ba mbooloo ma jeex te mënuñu faa jëlee dara ana lan moo ko waral mooy amuñu ay teggini bu ñu demee wormaal bis ba ak tax ñuy def bis boobu dañuy ñëw rek ngir mbooloo ma fa nekk wala ñu ñëw ngir bernda yan fay def waaye ñëwuñu ngir jàng si alxuraan ñëwuñu ngir déglu lañ fay waaye ñëwuñu ngir àndandoog mbooloo mi ci liggéey Sëriñ Tuubaa loolu dafa am mbooloo moo gis mu nekk am na ci ay boroomi xel am na ci ñu amuti xel am ci ñu amub yar am ci ñu amuti yar waaye ñi nga xam ne dañoo amub yar nañu yóbbaale ñi nga xam ne amul am yar ana nañ leen di yóbbaale mooy dañuy fexe ba kenn koo xam ne ab yar dafa màng ci yow ñu wan la melokaan woo xam te ne bun ne lee surtout xool la war a soppeekuwaat seeni xel xam ni kat lii mooy toggi bi te ab jullit bu nekk noonu nga war a doxee sëriñ bi am bayit wu mu waxaat wax ni wa min al aadaabi an nasiihata li kulli ahadin mimma tara fihi rusdahu wa anna la tara li nafsika ala ahadin xaqan wa innaka lasta mustaxiqan li cheyin min tanzimika ma asaara ilayhi bi qawlihi farham saxiran la takunu mudaqiran anhu layadan min nasihatin tara fiha lahu rusda wa waqira alkabir walaw raaytuhu daifa Sëriñ Tuubaa dafa wax ni bokk na ci ay teggin koo gis nga di ko laabire ci la nga yaakaar ni soo ko ko laabiree dana jariñu te mooy wax yi ñuy wax ngir bëgg nit ki ñu jariñu sëñ Tuubaa wax ne képp koo xamante ne bi ay teggin weesuwul képp koo gisee mën nga koo laabire te yàlla tax nga laabire ko ngir mu mën a jëriñu te jàpp ne yow kenn warta laa jox ay teggin waaye yow yaa war a jox ñëpp ay teggin kon sëñ Tuubaa dañuy jàngal ne doomu adama bu nekk jàpp nga ne ka nga dendal moom nga war a jox ay teggin waaye kooka wur laa jox ay teggin bu kenn koy ne defee noonu rek yaakaar naa ni kenn ku nekk dana am war ma sa digganteeg moroom ba yaakaar naa ni li war sa digganteeg moom lépp di nga mën a def mu teg ca ni it na ngeen di yërëm ndaw ci li ko laabire saa su demee ba wàcc aw yoon mu leer ko ne dugg na ci aw ñal te bu duggee dégg gi xaaxam lépp mën na ko jëm mu nekk aw loram nga war koo mën a laabire boo ca noppee ak laabire ak yërmande nekkul ci kon nit ki su gisee ndaw loo xam te ne dafa tollu ci digg àddunaam mu nekk ci biir bànneexam ana lan nga ko mën a dimbilee mooy soo gisee ci moom loo xamante ni bii loo war a mën a sakku ci moom ngir dimbali ko xetale ko ba mën a gëstuwaat nga def loola ndax seytaane saa su nekk damay faral di wax ne day dox ci diggante nit ak boroomam waaye dox ci diggante nit ak kilifaam kon doomu aadama bi ay teggin moo ko mën a jàllale ci lépp waaye ana lan la sëriñ ci wax rek dafa wax ni na ngay wekk mag mu la mag donte nag walaw raaytahu daifan mooy ku doye di koo xam te ne da nga koo jàpp gis ko ci mbedd mi mu soli sagar nga jàpp ne ku doye di la fekk mën naa doon ku yàlla gërëm loolu léegi-léeg day faral di am ndax bu doon Sénégal tey di nga gis koo xam te dalay romb ci mbedd mi soli sagar la koy jàppee moo eb daf fekk na mën naa doon koo xam te ne ku yàlla gërëm kon ana lan mooy ndox sa digganteeg loola ba loola doo ko xalaat ci moom mooy ab yar ak i teggin te ab yar ak teggin képp koo xamante ni jële woo ko ci sa kër fa nga jógee Sénégal yaakaar naa ne boo ñëwee ci réew mi yaakaar naa ne doo fi mën a am ndax yaakaar naa ne ay kàddu mënu laa yar te doomu adama bu nekk war naa mën a soppee soppeeku xalaat ni dund ak du luy sax ila ajalin musamman te war naa toog xalaat bu baax a baax xam ni bis penc wala bisam bi nga xamante ne bii dana ñëw ci moom te du ko bokk ak kenn mu xalaat ni kat ak njub dong mooy la fa jëriñ yawma laa yanfau maalun wala bannuuna ila man ata llahu bi qalbin salim mu mel ne kon xol bi nga xamante ni mooy xol bu mucc bi mën a jëriñ doomu aadama li nga xamante ni bi mooy li koy bijji mooy am ay teggin ay teggin mooy dimbali ab xol ba xol booba man di ragal yàlla di moytu ak mooy yàlla Sëriñ Tuubaa wax ni wala takun multafitan li asratin wala tubaais abadan an awratin yahni anna min al adab al hasanatin an la takuna taliban li hasratin wala tubaais abadan an awratin kama qiila la talmisu min uyubi nnaas ila axiri ba fa mu jeexe Sëriñ Tuubaa dafa wax ne na ci ay teggin ngay bañ a ay doomu adama yoo xam ne duñ ay boroomi xel te it nit ki da nga koo war a te bañ a yëkkate ay ayibi doomu aadama séq ak nit nga gis ci moom ayib nga di ko wuññi dem ci barab sangam ne diw de démb gis naa ko muy def nangam ak nangam moom de du ko baax te fekk na yow ayib ya nga denc moo ëpp moom la mu def waaye bàyyi nga say ayib ndax gisoo say ayib di nettali ay ayibam sëriñ bi ne kenn ku nekk wu say ayib war na laa mën a doy waliif ngay xool ayibi keneen te nit bu nekk saa suñ tuddee ci moom. wax yow na nga xool la gën a rafet ci moom nga nettali ko ne man de lii laa xam ci moom waaye foo ñu tuddee diw nga ne ah diw de gis naa ko de waaye moom de loolu nga ci wax noonu gis naa nanga ba bëgg a yokk loo xamante ni bii kii la doon wax ci moom lu ñaaw yow far nga ko doublé te jàpp ne li ngay wax noonu njariñ la loo xamante ni ci yow waaye moom njariñul gën a ñu jiw la ndax dana ko dimbali ci ay bàkkaaram muy wàcc waaye yow dalay yokkal di la gën a gisal kon ana na lañ mën a laabirante ci suñu biir mooy dañuy fexe ba di dimbilante ana lan mooy dimbilante gi képp koo xamante ni bii suñu borom dogal na nga xam wenn araf woo xamante ne bii wuy dimbilee nit ki la ci soo ko ko waxee mu mën a jariñ da xam ko ne mu ngi ci aw yoon woo xamante ne teguwu ca nga woo ko ba mu ñëw nga ne ko su ma suñoon dee doxee nii ak nii ak nii ndax bu ñu xoolee ci dëkk bii ñu nekk fii ci Argentine ci ñi ma ko war a wax am na ci ñoo xamante ni bii seenum ñàkk teggin foo ko takk weesu ndax ñàkkub yar ak ñàkk teggin weesuwul nga ñëw ci réewum jàmbur jàpp ne sañ-sañ ba nga fa am réew yi nga xamante ni ñoom ñooy doomi réew amuñu ko di def lu la neex di wax lu la neex te jàpp ni yow sañ-sañ boobu am nga ko ngir di ko wala boog jàpp nga ne am nga këyit boo xam te ne tey jii jàpp nga ne kenn wur laa mën a jël delloowaat la sam réew ba tax na nga def lu la neex di jàppanteeg ñoo xam te ne bii ay homme de la lan te loolu dara wurlu ko du dul ñàkk am xel ak ñàkk jàng wala ñàkk yow te doomu adama bu nekk war naa représenter réewam ma mu jóge ndax su fekkente ne dafa def benn ñawteem dan naan mbooleem dëkk boobu la ñuy tudd moo xam ci dëkk yi ñuy wër la moo xam ci Afrique la waaye bu benn nit defee ñu xool document am xam ne document bi document yi barab sàngam dan naan waa ñii kat nii rek seen métier lii lañuy ñuy def dañuy généraliser te su boobaa yow mi def loolu yaa tooñ ñëpp kon doomu aadama bu nekk nag war naa sàkku bu baax ay teggin te xam ni ay teggin mooy liy dimbali ab jàmm te képp ku ko amul it na la wóor ni. doo am ndimbalu adduna ak ndimbalu alaxira ndax ay teggin ci la nit ki mën a jaaree ba xam yàlla jaamu yàlla gi ñuy def di ko jaamoo suñu borom ci xamuñu ba xam yàlla nangu na wala nangul sax ci ay tegg lañ ko war a teg ndax nit ki mën nay jaamu yàlla ba noppi te la nga xamante ni bii moom la doon jaamu yàlla suñu borom nangu te du ci xam dara kon nit ki dafa am yeneen yoo xamante ni moo ko war a mën a dimbali ngir mu toftal ko ci la ko suñu borom di jëf lu baax. tey wax lu baax te saa soo gisee aw safaan nga teg sa tànk fexe ba loolu safaan dañ waaye nag bëri waa na ñoo xamante ne bii saa su gisee ab safaan dañuy fexe ba nu ñu ko yokkee wala jokk jolaate ko ba ñëpp yëg ko te loolu sëriñ bi daf koy tere sëriñ waa daf koo tere daf ne bu leen wuññi ayib bi kenn xool leen seen ayib moo doy leen sëkk ngeen nekk ca di ko lijjanti waliif ngeen di xool keneen te ku ne ci ñun am na sikk soo xamante ne bii wallaahi la asim fii ba ba ngay faatu mën ngaa toog di ko lijjanti te du ko tax a ndax kenn ci ñun ku nekk boo xalaatee am na jëf ju mu def doo xam te ni leer na ko ne ba mu koy def suñu borom gis na ko malaayka gis na ko waaye wóoru ba xam ndax yàlla jégal na ko te benn boobu rek doy na sëkk ci mu war a li jënti loolu ba xam ndax yàlla jégal na wala jàggal jégal walif di xool ay bi kenn kon bu nu yàlla boolee ñu nekk ci am réew mat fi ab lim tubaab yépp xam ni bu ñu xoolee nit ku ñuul sax muy beneen réew sax dañ naan sénégalais la ñuy wax sénégalais du ñu wax benn réew waaye du naan sénégalais yi te am na ci ñoo xamante ne bi du ñu ay sénégalais waaye kuñ ci jàppoon rek da nga naan sénégalais yi ndax xam na ne ñun ñoo nekk ci barab yi ñu occupé te soxla ko ñoom ñun ñoo fa nekk te saa bu ñu fa nekkee nekkuwun fa aw anamin woo xamante ne anamin wu rafet la woo xamante ne tey jii ku leen fekk maanaam maslaa ak ñoom waaye déedéet da nga leen fay fekk ba ñu ànd yow di jàppante ak te loolu sëriñ Yankoba junjoon na ko léegi ci nekkin wi nga xamante ne bii moom la ñu nekk ci réew mi te mooy lu mat a bàyyi xel ndax bu ñu xoolee Sénégal ga nga xam ne fa la ñu dëkk pël la Fuuta nekkoon nga xam ne fa daan ñëw di liggéey da nga gis ku leen toog naan ay ndereng ngeen ndereng yóbbu ngeen seen xaalis waa naka moom ñun ñi nga xam ne dañoo jóge suñu réew ñëw fii di liggéey ñii yor ay malet ci seen i malet nañ ko tabaxee kër pël la Fuuta yooyu yor seen i taabal di jaay seen i ban di tabax seen kër nga bëgg leen ko iñaan te li ngay li ngay am fii bëggoo tubaab iñaan ko léegi kon loolu lan lay nuru dañu sàkkuwaat xam-xam akub yar bu baax ndax nit ki su xamul mënta yaru waaye bu sàkkoo xam rek sunu borom mën na koo dimbali mu xam ndax damay wax ni temps bi nit ki mën a def ci portable di ko wax ci amul benn solo boo ko defee ci gëstu ay téere suñu borom mën na koo dimbali mu mën a lijjanti boppam xam fan lay taxaw xam lan mooy ay fartaam xam nan la war a dundee diggam ak boromam ak nan la war a dundee digganteem ak i moroomam ndax kaw suuf si ñu nekk. di fi dund ci suñu biir am na ci loo xam te ne ñoo ko seq boo liggéeyee ñun ñoo ko mën a jéggale suñu borom waaye li seq suñu digg suñu borom mën nañu ko jégal mën nañu ko mën a jégal waaye da ci am loo xam te ne ci ñun ñii ci suñu biir kenn ku ci nekk moo ko mën a jéggal moroom muy loo xam te ne lu mat a bàyyi xel la ci suñu biir te nu wàññandiku regg gi ñu regg ba tax ñuy baj baji ba jàpp ni kenn warutoo digal kenn jàpp na ni kenn warta digal kenn ndax fi mu toll nii tey jii képp koo xam te ni moo la fi mujj ñëw ëppalee la dara boo ko wa jéemoon a teg ci aw yoon day jàpp na li nga ko ëppalee moo tax mu lay mu lay jéem a wàññi te demewut noonu ndax wërsëg wi yaatu na du caaginu rek yor ab malet képp mooy tax am wërsëg wala du caaginu yor ab meesa képp mooy tax suñu borom jox la wërsëg du caaginu yor ab magasin mooy tax képp suñu borom jox la wërsëg déedéet suñu borom li mu sàkk ngir di ci jox ay wërsëg bari na ba ci jullit wa amanaa lak bi salaat wasabit alayha la nasalaka risqan waaye ñun jàpp na ni fam suma fi manakibiha wa kullu min risqin mooy bu nu xëyee te jaayiwul du ñu am wërsëg te nit ki toog ci biir këram di jaamu yàlla sax wërsëgu suñu borom mën na ko